voilà donc ñu bàyyi Assane Gueye mu développé li nga xamante ne euh, moom la indi tey. ok jaajëf euh, Khady euh, Ndiaga moom mooy jiital Ndiaga Gueye di président ASUTIC muy association des utilisateurs des TIC muy TIC lu jëm si wàllu xarala yu yees yi Ndiaga ñu am benn projet boo xamante ne ministère bi yor wàllum xarala yi ñoom ñoo ko teg révisé ko 2017 jamono ji jaar daanaka jàllagul waaye lan la projet boobu ëmb ba waral coow li. gërëm di leen santaat encore ci ci waxtaan bi ngeen indi tey parce que ñu dañu nekk secteur boo xam ne liñ siy wax bëriwul li si ëpp buñ siy wax affaire dérive yi am ci réseaux sociaux la ñuy wax mais les questions de fond surtout décision yi gouvernement bi jël muy am impact ci askan bi li si ëpp duñ ko faram-fàcce pour askan bi xam lal na bër ki démb la fi ARTP wax ne dañ def dégroupage la boucle locale mais Sénégalais yu bëri xamuñ mooy lan donc faram-fàcce wuñu ko démb encore ARTP nee na daf fi indi fournisseur d' accès internet yu bees mooy jaay ñuy jaay internet yu bees loolu ban impact lay am ak ban njëriñ la amal askan bi loolu aussi jotuñu ko faram-fàcce beneen yoon aussi gouvernement bi neen daf fi indi ay opérateur virtuel mooy opérateur yoo xam ne dañu dem jënd si opérateur yi nekk dañ jëkk jaayaat loolu ban njëriñ lay amal askan bi loolu aussi kenn faram-fàcce wu ko ARTP aussi waxoon na fi ne dañuy def free roaming mooy que boo demee bitim réew pour wootee sa dëkk dootul jafe loolu aussi faram donc bëri na décision yu bëri yoo xam ne gouvernement bi dañ koy jël si secteur bi considéré assez technique donc duñ ko faram fàccee pour askan bi xam lii gouvernement bi liggéey ndax baax na si askan bi wala baaxul si askan bi moo tax may rafetlu waxtaan bi ngeen fi indi tey mais bala may tontu si sa laaj dama bëgg a wax si contexte bi ñu defee code bu bees boobu. loolu si mbiru xarala yu bees yi mooy contexte bu benn firnde laa lay mën a jox benn xibaar laa la mën a jox buy wane Sénégal fa tollu toll tey am na benn kuréel bu tudd Union internationale des télécommunications ak mu nekk day génne rapport buy wax si dëkk yi nekk ci àdduna bi yëpp fan la ñu toll si mbirum xarala yu bees yi ñu ngi jëm kanam wala ñu ngi dellu ginnaaw. Sénégal 2012 ci rapport Union internationale des télécommunication mu ngi nekkoon à la 124e place dernier rapport bu ñu def de 2017 Sénégal mi ngi ci 142e place mooy que Sénégal dellu na ginnaaw du 18 places donc ci mbiru xarala yu bees yi au lieu Sénégal jëm kanam Sénégal day gën di dellu ginnaaw te loolu rapport unité yi mi ngi koy firnde ak mu nekk te loolu sax mooy li Sénégal yiy dund. lan la Sénégal yi di dund xarala yu bees dañ fi jot ak jafe-jafe ak njëg gu yomb ak yeneen leneen di nekk ci biir te képp kuy topp secteur bi li fiy xew Sénégal dellu ginnaaw bi mu dellu si xarala yu bees du bett kenn. xam nga lu tax bëgg a wax pour wax ne fi ñu doon xaaree Sénégal moom def code télécommunication day tax dëkk bi gën kanam. ndax xarala yu bees yi gën a jëm kanam moo tax ma bëgg wax la contexte bi fi ñu toll ñun si xarala yu bees. Sénégal day dellu ginnaaw. boo xoolee rapport union internationale des télécommunications boo xoolee banque mondiale mois de mars 2018 ñëw na fi gisee ak gouvernement du Sénégal ministère des finance et ministère de l'économie numérique la banque mondiale wax mooy le Sénégal est à la traîne mooy que Sénégal si mbirum économie numérique ay jéego yi ñuy def dafa yéex trop dafa yéex trop te loolu warul bett kenn parce que boo ko xoolee 2012 ba tey gouvernement Sénégal mosut a def li ñuy wax lettre de politique sectorielle du secteur mooy wax gis-gisam si li ñuy def secteur boobu jëm kanam si diir bu gàtt si cinq ans boo xoolee gouvernement Sénégal 2012 ba 2016 si lay doon am stratégie pour xool naka la ñuy fexe ba jumtukaay yu yi gën a jëm kanam ñu tuddee ko Sénégal numérique 2016 2025 te boobu aussi tey na donc Sénégal fi ñu toll li doon xaar ci gouvernement bi mooy ñu indi code communication électronique boo xam ne day tax ba dina réunir les condition pour Sénégal gën a jëm kanam waaye ni ñu jàngat ni ñu toggee code boobu moo njëkk a doy waar. ndaxte ñoom dañ dem jëli benn consultant tubaab boole ko benn consultant sénégalais boo xam ne kenn xamu ko pour mu defal code boobu te boo xoolee code de 2011 ay sénégalais ko bindoon te ñu ko bind ñu ngi ba tey. Sénégal bu soxlaa code bu benn lu tax mënut a woo Sénégal yi nekk fi seen xam-xam màcc si mbiru droit ñaata professeur agrégé de droit la am. ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu bàyyi leen fii dem jëli benn consultant tubaab pour wane ko benn sénégalais boo xam pour ñu defal code boobu. bi rek y'a problème. voilà déjà si processus bi rek. mu ne ne dañuy jóg pour liggéey Sénégal doomu askan bi la ñu wax ne kaay liggéey dëkk bi dëkk bi waa bi dafay koy liggéey. ñun ñoo bokk liggéey donc war bu soxlaa dara te ay doomi Sénégal mën ko def daf leen war a woon ne leen kaay leen ñu liggéey lii mais defuñu ko benn cabinet tubaab lañ dem jëli boole ko benn Sénégalais pour ndax ni ñu naan way way cabinet état moo tax ba code bi ñuy jur am na yu bëri yoo xam ne doy na waar am na yu bëri yoo xam ne saafara wuñu ko si code boobu mais ma commencé si bi nga bëgg bi ngay wax mhm. mooy article 27 bu code bi boo xam ne day tax dorénavant Sénégal un cadre légal qui permet la censure d'internet existe lu article 27 boobu wax dañu wax ne opérateurs yi pour des raisons techniques pour sécuritaires mën nañu filtrer ralentir bloquer ay contenus yu nekk ci internet bi ñu rax ci dolli autorité bi muy ARTP pour raison économique moom aussi mën a jox ay autorisation opérateurs yi pour ñu bloquer ay services pour ñu bloquer ay ay contenus sur internet muy disposition boo xam ne ça crée un cadre légal pour la censure d'internet au Sénégal. alors si si je comprends bien euh, mën nañ xëy bët autorités yi par exemple muy ARTP wala bii beneen autorité euh, daal di jël dogal jox ko opérateur yooyu nañu bloqué benn application bu mel ne par exemple WhatsApp. waaw loolu la cadre bi permettre. Mhm. loolu la cadre bi permettre code bi ñu ngi ko adopté le 6 juin 2018 par le gouvernement en conseil des ministres. mais mhm. assemblée voté bu ko. moo tax li ñuy def am na solo pour alerté les députés sur les dangers de cet article là non seulement sur la situation économique de l' économie numérique dans ce pays mais aussi sur les droits et libertés des sénégalais. conséquence boobu mooy lan mooy que opérateurs yi mun nañ xëy ne ah application bi kat day jël beaucoup de ressources donc dañ koy bloqué. opérateur yi mun nañ xëy ne mooy application bi day indi ay problème de sécurité sur suñu réseau dañu koy bloqué donc loolu day ubbi bunt bi pour que opérateur yi ñoom ñuy ñooy décider naa lan la Sénégalais yi war a gis ci internet ak lan la ñu war a def ci internet wala ARTP joxe ay autorisation ne bloqué leen lii bul ñu gis lii donc ARTP lu sénégale yi war a gis ci internet war lu ñu war a def ci internet parce que ça s'attaque à la liberté d'expression boo seetloo at yi ci ginnaaw yëpp am na benn opérateur bu doon ñaxtu ne day ñàkk xaalis fu mu toll lu tax muy ñàkk xaalis parce que sénégalais yi léegi bu ñuy téléphoné ñuy jël téléphone classique bi di jaar réseau yi dañuy utiliser li ñuy wax techniquement application de par voice over IP mooy téléphone par internet. pour téléphone par internet ñaari solution moo am nu ma ko jaar si logiciel yi muy WhatsApp Viber Messenger comme nga ko def taf si téléphone normal bi aussi téléphone normal bi. bi ñu fi indee opérateur bi ñu fi indee eh, fournisseur d' accès internet yu bees yi dañ leen a tere pour ñu jaay téléphone yi par internet te téléphonie par dafa yomb dëkk yoo dem am na téléphone téléphonie par donc nit ñi bu ñu man di woote woote bi du du cher loolu nag Séné gouvernement Sénégal dafa bañ askan bi jot si léegi nag ñu code bi daan ne léegi opérateur yi bu fekkee ay Sénégal yi utiliser ay WhatsApp baay ba mu nañ xëy bloqué ko. parce que boo seetloo si ginnaaw dañ ko doon def mais amuñu woon cadre légal donc mu Sénégal yi ñaxtoo ARTP wax ñu delluwaat service bi naa bu ñu voté code bi nag dorénavant am nañ pour di bloquer application léegi donc boo xoolee code bi ak explication yi nga xamante moom nga joxee ci article 27 boobu ñaari mbir day feeñ benn bi euh, liberté d'expression day wàññeeku ñaareel bi code bi liggéeyulul askan bi mais dañ ko tëgg dañ ko tëgg ngir opérateur yi. lii gouvernement bi def si code boobu lu lu doy waar la parce que bu ñu xoolee ne Sénégal mi ngi dellu ginnaaw si mbirum xarale yu bees yooyu dañ ko doon indi code tax Sénégal mën def ay jéego léegi ak article 27 boobu opérateur yi service bu ñu buggul Sénégal yi gis ko kenn du ko gis xale yi yëpp di débrouillé wu di def ay vidéo di ko jaay si YouTube bi mun nañ xëy bloqué leen donc économie numérique day wàññeeku bu baax au bénéfice de kii ki fi ëpp doole mooy opérateur bi wala bu ñu ko bloqué woon dañuy dikk ne la ah yow boo bëggee Sénégal yi gis sa vidéo yi da ngay dikk fay parce que loolu moo par exemple aux états ay Netflix pour nga ñoom dañuy fay opérateurs yi pour que ñoom nit ñi mën a gis seen i vidéo donc xale bi nekk fii Sénégal di débrouiller def ay théâtre yu ndaw ay sketch am yu ndaw di ko jaay si YouTube bi ñu xëy Sénégalais yi mënatuñ ko gis parce que opérateur dañ koy bloqué dañ koy ralentir mais kooku jumtukaay yi liggéey yàq nañ ko mais bi si gën a garaaw mooy que article 27 boobu day indi li ñuy wax day wàññi li ñuy wax liberté d'expression parce que nii li ñu am si bu bëgg a wax sa xalaat di nga wax sa xalaat mais lii bu amee mooy article bi buñ ko voté yi léegi opérateurs yi dañuy am autorisation un cadre légal pour que lu ñu gis si internet bi te neexu la dañuy bloqué ko donc Sénégal dootuñu mën a gis lépp lu ñu bëgg a gis donc c'est une attaque à la liberté d'expression au libre accès de l'information yéen par exemple opérateur bi mën na xëy ne ah yéen kat site web bu Walf bi day consommer beaucoup de ressources wala day indi ay problème de sécurité sur notre réseau donc dañ koy bloqué site web Walf kenn dootu ko gis te buñ xasee ba voté loi boobu opérateur yi xam nga lu ñuy def dañuy installer des instruments de surveillance sur internet pour mën a xam nit ñi lan la ñuy def ak yan service la ñuy bloqué yan service la ñuy ralentir te loolu bu ñu ko defee mooy que tey li ñuy def mooy bloquer Viber WhatsApp ëllëg ils vont bloquer des contenus gênants mooy que ay articles yoo xam ne neexu leen ñu bloquer ko rax si dolli ëllëg mun nañ si topp ni léegi dañuy xool dañuy surveiller les correspondances privées des citoyens mën na si jóge ne dañuy xool les correspondances privées des journalistes des lanceurs d'alerte des politiciens on est dans une situation de surveillance généralisée dans ce pays et moo tax dañuy alerter pour que loi bi wala bu ñu koy voté nañ ko amendé pour que autorisation yooyu ñu jox opérateurs yi ak ARTP ñu dindi ko parce que nag nguur gi pour mu caytu li xew ci internet bi lu normal mais danger bi fi mu nekkee mooy ñu privatiser la justice dans ce pays mooy donne aux opérateurs le droit de ralentir de bloquer et de suspendre des contenus des Sénégalais loolu bu ñu ko waree def justice moo war a jël décision donc moo tax ñu ñu leen di ñaax pour ñu amender la dispositions là pour que bu ñuy bloquer benn application que ça soit une décision de justice déjà dans le code de la presse article 180 et ngi jox autorisation aux fournisseurs d'accès internet et aux hébergeurs de sites web bu ñu gisee contenu gênant dans des applications web de le la justice et ça c'est extrêmement dangereuse dans un pays si dëkk justice mooy dogal li nit ñi war a gis wala privée moo koy dogal moo tax ma ne article 27 boobu dañuy ñaax député Sénégal yi ñu amandé ko naam mën na fi nekk mais bu fi nekk nag fekk bu ñuy jël décision bloquée wala ralentir que ça soit une décision de justice justice Sénégal moo koy décider mais pas un opérateur privé. alors comme ni nga ko waxee léegi code bi li ko taxaw jug si yoon bu ñu dee yoon rek la ñuy wax askan bi moo war a doon. absolu ngir euh, Sénégal jëm kanam si wàllu contenu par rapport ak explication yi ñu jox yëpp euh, man li ma si nemmeeku rek moom mooy euh, benn opérateurs yi privé yi ñoom ñoo si am euh, loo xamante ne dina mhm. leen jëmale kanam. Mhm. ñaar y a un autre danger. par exemple quand on parle de la politique sànq yaa ngi koy rappelé ci site web bu Walf. Mhm. benn exemple par parmi tant d'autres. on a vu que benn dëkk bu mel ne Gambie bu mel ne RDC mus nañ ko def. dem si élection bloqué internet. avec ça est-ce que lu ñu risque am risque yooyu ak ñun ñu jëm xam nga élection présidentielle yi mu ngi ñëw te loi bi xam nga voté guñu ko parce que l' assemblée a vacances parlementaires ils reprennent en octobre et la particularité ak su bëgg mun nañ ko commencer appliquer donc le danger mooy que comme on s'approche des élections présidentielles de 2019 que loi bi bu ñu ko voté mu jox un cadre légal pour s'attaquer à la liberté d'expression de Sénégalais muy contenu bi yoo xam ne nguur gis na ko si nag bi te neexu ko rek mu bloqué ko parce que maintenant cadre bi dafa am moo loolu nag il faut askan bi jóg si alerte député yi pour que de loi bii nañ ko amendé buñ ko voté nii te du loolu rek moo doy waar si code bi boo seetlu am na yeneen jafe-jafe euh, ma jox la si benn exemple xam nga Sénégal yi dañuy ñaxtu tout le temps si dalal toon yi xaw ma dalal toon mooy les sonneries personnalisées ko tuddee contrat à distance mooy que dañ la koy envoyé boo appuyé si fenn rek ñu ne accepté ma contrat bi code bi waxu si dara alors que normalement contrat à distance yi dañ ko war a matérialiser par un écrit ça tout simplement le fekk mu envoyé la SMS doyul pour formaliser le contrat ba ñu mën a jël sa crédit da war a jaar agence signé un këyit kon kon waxul si dara beneen jafe-jafe moo di ne askan bi bu amee jafe-jafe ak opérateurs yi boo demee si ARTP ARTP du si def dara du si saafara dara ñu ne ARTP comme nekk lu fi askan bi te defalul dara askan bi nañ créé koo xam ne boo amee jafe-jafe ak orange expresso wala tigo nga mën a dem si moom mu saafara ko mooy li ñuy wax justice de proximité loolu aussi waxuñ si dara beneen bi encore si code boobu ñu ngi wax ne léegi ay contrat day am entre opérateurs yi ak ñi accéder au réseau te contrat yooyu bu amee opérateur maintenant bu ko neexee mën na demander caution de garantie déjà pour téléphone fixe yi dañuy demandé 16500 de caution de garantie te ñu ngi wax naa y a 9 millions d'utilisateurs ak yu kenn xamul d'internet euh, de de 15 millions de d'utilisateurs de téléphonie mobile au Sénégal xoolal ku nekk ñi laaj ko 5 millions de caution de garantie pour 75 milliards que ñuy collecté ci Sénégal yi dem di ko déposer à la caisse de dépôt et consignation donc code bi dafa bëri article yu bëri bëri bëri yoo xam ne daf doy waar te nag warta bett kenn parce que booy liggéey pour sa askan léegi que nga woon woo sa doomi askan pour ñu ñëw liggéey dem waaye bitim réew ñu liggéeyal la ko gëm naa ne boobu liggéey bi du ñu ko bëggee duñ ko si amee. si seen ñaxtu yi tamit tudd ngeen article 28. bi nga xamante ne moom mi ngi si code bi ñu nemeeku tamit yaa ngi ne eh, d' abord euh, relaté nga ko dina euh, lii di liberté d' expression dina wàññeeku li nga xamante ni moom mooy liberté d' information dina wàññeeku dina wàññi économie numérique. ak euh, li nga xamante ni moom mooy euh, tax euh, économie numérique donc les les les jeunes qui sont mhm. sur internet ak start yi nga xam ne ñu ngi commencé juddu. Mhm. alors ban message ngay lancé d' gouvernement bi nga xam ne ñoom ñoo jël ak code bi d' abord avant ñoo egg sax à assemblée nationale puisque ñoom déjà validé nañu ko est ce que y' a ñu xool nan lañ koy la ñuy revenir pour def ay amendement. waaw ñun bi ñuy commencé liggéey code bi boole woon nañu ci comité de pilotage bi nga xam ne ñoo waroon valider la ko mais bi ñu duggee si biir di liggéey ak guvernement bi gis nañ ne kat euh, woote bi doon woote boo xam ne pour que effectivement nit ñi mën a joxe seen xalaat parce que ñoom bi ñuy defar Sénégal numérique 2016 2025 boole ñu joxe beaucoup de réserve réserve yoo xam ne tenue bi c'est en compte wata ba ñu génnee seen stratégie Sénégal numérique 2016 2025 ñun ba ñu jógee di waxaat suñu xalaat dañ ne yéen war leen wax dara parce bokk ngeen fi ñuy liggéey stratégie bii yoon nag ñu boole ñu suñu liggéey code bi bi ñu xamee ne suñu xalaat kenn du ko jël en considération dañu si génnaat xamal leen ne kat ah disposition yii nekk si code bi ñu simel li leen yëpp ne ànduñu si te gis nañ ne changé wuñ si dara gouvernement bi def nañ ay communiqué plusieurs fois pour alerter leen dem nañ sax def lettre ouverte au président Macky Sall pour alerter sur les dangers de l' article 28 mais gis nañ ne dara changé parce que le 6 juin 2018 le code a été adopté donc nee na wax ji ki si des mooy assemblée nationale député yi ak askan la donc il faut ñu wax ak député yi alerté leen pour que ñu amender article vingt huit parce que bu ñu ko amendé wul ça crée un cadre légal pour la censure d'internet au Sénégal c'est-à-dire que ëllëg ñun ñëpp mun nañu surveiller ñun ñëpp mun nañu toog fii lépp lu ñu bëggoon def ci internet ñu tere ñu ko ëllëg mën nañu boo waxee ñu ne lu tax nga wax ñoom fi ñuy sukkandiku pour def loolu mooy fan mooy Sénégal yi dañu nekk si réseaux sociaux yi di saaga di wax wax ju ñaaw di wax wax ju kii nga wax moo di ne amul benn étude bu prouver que les Sénégalais se comportent mal sur les réseaux sociaux maintenant ce qu'il y a il y a eu des faits divers hyper médiatisés et là je voudrais faire quelques observations si si fait divers yooyu wax nañu naan dérive des Sénégalais sur les réseaux sociaux. waaw nga may ma quelques observations loolu xew si réseaux sociaux yi xam ne presse traditionnelle classique bi ñoo ko relayé hyper médiatisé ko bu si presse bi waxul kenn du si jot muy benn observation ñaareelu observation chaque jour dans la vie réelle di nga gis des faits divers et que ça occupe la une de l'actualité non alors pourquoi les faits divers dans les réseaux sociaux occupent la une de l'actualité ñetteel ba ce qui se passe au Sénégal mooy am ay sénégalais yu nekk ci net bi di wax wax yoo xam ne rafetul mais am na si yeneen dëkk yi et pourtant foofu du nekk à la une de l'actualité